bismillah ñaan gu bàyyee waat ci sëriñ alxasan salaam mu di subhaana man yaraani yaarifu makaani samiha kalaami askunu yaa rabbi ñaan gi fi mu jóge sëriñ alxasan salaam daa wax ne bis dafa doon dox romb ak garab gis fas gis fa sax bu nekk ci biir garab gi xiif lool bëgg a génn mënul génn sëriñ alxasan salaam ne ma taxaw dégg ko muy jàng baat yi mu di subhaana man yaraani arifu makaani samiha kalaami askun yaa rabbi suñu borom xar garab gi mu génn am liberté am mën a dox wuti lu mu lekk di wax ne képp koo xamante ne doomu aadama gi di ko faral di jàng yit yaa xam lim boo ko mën a wutal di ko faral di jàng nee na suñu borom la génn ci xat-xat yi yëpp yoo mën a nekk fu ñu la tëjit mën nga faa génn ci bu soobee suñu borom ki doon jotal kàddu yi seen mbokku aadama salaam di ñaan suñu borom yokk leeru Seydina Alxasan salaam taas ci barkeelam ñuy xamle ne itam ñaan gi jot nañ ci ndigalu njaboot si Assane salaam ngir mën koo baaxee jaam ñi ndax sëñ Assane Salam njëriñ léppam njëriñ la te ñëwam àdduna yëpp ngir bëgg jaam ñi jëriñu rek la woon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.